yëfu ñun ñëpp la du yëfu sax maam Massamba Thiam yëfu Sénégal la donc liñ ci war a def rek danañ ci def ak diisoo danañ ko def ak xol danañ ko def ak xel ngir juumte bañ a am euh, ñu ànd ci nag di ko rafetlu euh, topp ci suñuy gannaaw mag topp ci su parce que am nañ tamit ay rakk am nañ fi suñuy maam yooyu yëpp nag euh, li nga xamante ne ñu ngi ñu koy jàngal ñu jéem ko def dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax yëf yi boo xoole sunu maam ju njëkk ja moom naar la woon ñu koy wax Mahmoud Chami jóge woon ca bi ñuy wax Syrie léegi euh, ñu ko doon wax Chami euh, boo ko xoolee moom moo doon Baytul Mahfuz Syrie Irak iraan dëkk yooyu yëpp moom lañ doon wax sànni sunu maam jooju nag moo ñëw fii doon jàngale alxuraan jaar ca Tombouctou ci Soudan daal di jóge foofu daal di yéeg Guinée Conakry fu mu jaar nag dana fa jàngale ay at euh, bi mu jógee foofu daal di ñëw ci dëkk bi ñuy wax Ngenaar Ngenaar nag moom lañ doon wax après dëkku Caameen Caameen boobu nag mooy tay ba ngeen bi nekk fii waaw sunu maam Masamba Thiam boobu nag ñu ko naan Mahmoud kooku tey moo waral ba ñuy wàcc sunu maam Masamba yi ndax buñ ko fi limee ñun ñooy dixième génération waaye li ëpp solo rek mooy ah maam Masamba Thiam fédération bi judd na mi ngi judd ban ci bésu dimanche dimanche ñu ko limul axat muy premier jour ci bésu euh, ci heure tàkkusaan kon ñu ñun mënuñu def lu di nangu même yéen ñi fi nekk ñëpp ak ñi fi nekk ñëpp ñu ñaan yàlla liñ fi ñaan ñëpp mu may nu ko ñu dugg ci nag def ko ci jàmm ak salaam ñu ñëpp ñu bokk ko suñu président wax foog naa ci lool lañ topp mooy ne dañu war a mit ah seet naka lañ war a am nga bu métti la foog ñu seetaa si toog waxtaan ba ñu d'accord ban jubloo lañ war dem ñu def loolu bu njëkk a ñun xam loo ne suñu mbokk yi fii lañ nii lañ bari Sénégal nii lañ bari Gambie wante léegi am nañ yëpp dafa mel ni affaire bi léegi dina yomba liggéey bi dina yomba because dañu bari. suñu lu patrimoine mooy mag ñi nga xamante ne bii ñoom ñoom tabax réew mi ko mag ñooñu nga xam ne ñoo fi saxal lu baax dugal fi diine transmettre ñu ay valeur ba tey jii ñu mën a ràññeeku ci àdduna si fu ñu mën di nekk. en tant que sénégalais fu ñu dem yóbbaale fi loo xam ne fu ñu taxaw ñu naw ñu mag ñooñu ñooy suñu gàññe bu njëkk mag ñooñu nag kenn jiituwu ci sëriñ Massamba càmm sëriñ bi nekk sama càmmoñ doon wax léegi wax na ni mu jaxasoo ak nit ñu baax ñi ci réew mi ni mu leen meññee. nous rendons grâce à sentiment également euh, d'extrême gratitude et de reconnaissance envers le vénéré Mama Sambachan, celui par qui nous sommes tous, puisqu'il a eu, euh, de par sa connaissance et ses péripéties, eu à faire plusieurs pays qui nous permettent de constater que nous avons des parents un peu partout dans la sous-région et un peu partout ici au Sénégal. Avec euh, feu notre père Mourchidi Yancham et d'autres euh, personnalités comme le colonel Cham de Kaolack et d'autres vraiment personnalités se sont retrouvées euh, pour créer une fédération parce que euh, on a recherché le mausolée de Mama Samba Cham pratiquement pendant une décennie. Et ce mausolée se trouve à Mbaké Djolof. Euh, notre papa avait commencé à initier des ziyaras annuels. et à fédérer toutes les associations de petits-fils de Mama Samacha, puisqu'un bureau fédéral a été mis en place à partir de toutes ces associations. Et comme cela a été dit, autour d'un conseil des sages euh, dirigé par Ibrahima Cham Kellel de Chamen Walo, avec plusieurs érudits, dont Al-Khali, Gaussou Cham, qui vient de Soukouta, un grand village à, à, en Gambie, avec au moins 75 000 habitants. Et les trois quarts de ses habitants sont des Tchad. Donc, euh, lui-même, il dans le Conseil des sages et d'autres personnalités telles que Cheikh Tidiane Cham, Borom Kaminbi, et vraiment le ministre Serigne Mbaye Thiam également qui est membre de l'association. Et à, euh, à, euh, après cela, nous avons maintenant le bureau fédéral qui est dirigé par le président Ibrahima Yane Thiam avec aussi l'ensemble des présidents de structures. Nous les retrouvons à Touba, à Darou Mousti, à Thiamène Tataguine, à Thiamène Gawane, à Mbacké Djolof. à, euh, à Tchamen Wallo, à Kaolak. Vraiment, c'est des associations un peu partout. Donc, comme ils l'ont dit, nous allons nous retrouver très prochainement pour établir notre plan d'activité, mais surtout pour préparer la grande ziara annuelle qui a lieu euh, chaque mois de juin. Toutes les associations qui sont membres savent jusqu'à Mam Massamba quels sont les liens. Dans la perspective, il est également dit qu'on devrait voir à partir de Mame Massamba et remonter quels sont les liens puisque ça a été rappelé, nous avons notre aïeul qui vient de Chami.